Nice, nice, nice. So awesome. ñu dox ñu dox ñu ñëw gars yi ñu ñëw ah ñu dox ci kanam. ñu dox ak moom ñu dox ak moom voilà chers mi ngi nii xale baa ngi nii ñibbisi na de. waaw jamono micro jamono baa ngi nii ñibbisi na xale bu jaaxal état toog ci télé di leen jox xam-xam gars yi di ko jaay doole ñibbisi na xale bi ñibbisi na nag borom article yi borom droit yi. waaw frère ndaw an waa jom na def jaww la. Bape, bape, bape, namunanla. Maafkan, maafkan, maafkan namun Allah. Ya Allah, maafkan namun Allah. Maafkan di sini. Maafkan. ma pe ni visina, ma